dikki fi ne di eh, siyaare mboolem seen ñi nga xamante ne ñoo ngi suñu jotaay di bamba fépp ci fépp ci lu baax tey jii ñu dalal kenn ci suñu gan di kubah di ko xamante ni moo ngi bokk ci sering Serigne Moustapha sering moom Serigne Cheikh moom Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu ñu gën ko miin ci oustaz Sidi oustaz Sidi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa oustaz وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سرين مسامبا نجلي نيو يبت إلى زيارة إلى ندوكت إلى واجه سواج واي بو وير وير وير وير تي أم كونتانت ما بو مغا مك شي دارال كي نيو دارال شي تلفزيون انترنت بي مي كيفني تي في ak bamba fep comme ni nga waxe fa tabarakallah di ñaan yalla rek yalla yalla motali yene inshallah jërëjëf oustaz Sidi waxtaan bi dañ ci euh, jublu ci ki nga xamante ni mooy sababu jotaay bi mooy seriñ Moustapha Sy oustaz boo ñu bëggoon wax Serigne Serigne Moustapha Sy kan mooy Serigne Moustapha Sy. waaw suñu mbokku Massamba. Mhm. Euh, xëy na sax dina jafeñ lool lool lool. Mhm. ñu wax dëgg-dëgg kan mooy Seydi Cheikh Mouhamed Moustapha. waaw parce que nitu yàlla. Eh, nit ak yàlla ja mooy tax xam ko di jafe donte nag mën nañu tudd lenn ci ay màndargaam yi nga xam ni yàlla baaxe nañu ñu ñu gis ko wala ñu dund ko wala mag jàngal ñu ko kon ci yooyu rek la ñuy mën a sukkandiku pour wax dëgg-dëgg kan mooy Seydi Cheikh Mouhamed Moustapha bu dee góor googu nga ñuy laaj muy Seydi Cheikh Mouhamed Moustapha moom mi ñu ngi ko tuddee Serigne Moustapha Sy ñu ngi ko tuddee baayam bu ñuy wax Serigne Moustapha Sy Djamil kon kooku lañ ko tuddee kon baayam mi ngi ko tuddee magam boo xam ni ñoom ñaar ñoo bokk baay waaw waaye nag bu fekkee ne ci jëmmi tur gi mhm. moom la ñuy décortiquer dafa am ay xasaais yu nekk ci biir turam maanaam dafa am ay jeg jegle yu ci nekk mhm. parce que yaakaar naa Moustapha baatu Moustapha mhm. dafa am lu muy firi ci langue arabe moy ko xamni istafahu allah manam ko xamni yàlla daf ko tan bo demé ci alquran yàlla mo ngi wax nan wa innahum indana la min al mustafayn al akhyar ci suratu sad kon tour bi amna fumu fumu fumu fumu bawo waye tamit amna lu muy symboliser wa kay koku moy asid Cheikh mohammed mustafa fa tabarakallah ah mu judd ci ñaari wayjur yo xamni kenn dootul werante seen i muy ku mel ni Asayid Cheikh Ahmad Tidiane si al Maktoum mu nekk woy juróom bu góor ak ku ñuy wax soxna Sofiyatu Dem boo xam ni Alhaaji Ahmad Dem bu Sokone boo xam ni ñëpp xam nañ ko ci réew mi moom moo nekk woy juróom bu jigéen kon li gars yi di wax naan laa xarwa laa xarwa ci li mu doon mu doon ko ndax ñaar ñu ko meññ ñaar ñu ko meññ ndax comme ni alquran wax rek wal baladu tayibu yaxruju nabaatahu bi izni rabbi maanaam bërëb bu teey bu dal mënul génnee lu lu dee moo tax fa tabarakallahu ñaar ñooñu ñoo ko meññ muy asayid Cheikh Mouhamadul Moustapha juddoo ci euh, Tiwaawan euh, mu tombé le 10 euh, juin 1900 1950 1952 kon kooku moom mooy asayid Cheikh Mouhamadul Moustapha ci tënk bu gàtt rek ci leen ci ay trop. jërëjëf oustaz Sidi leer na nañ ñi ci càll rek Serigne Moustapha Sy suñu soppee. ndeysaan boo nu bëggoon a wax xamal dëgg-dëgg dundinu Serigne Moustapha Sy ak dëgg-dëgg lan mooy mu sase diini ak mu sase daaj yi sëñ sëñ Oustaz Seydi waaw Serigne Massamba dund Serigne Moustapha dundam lépp mën nañ ko tënk ci jàngale parce que dafa am benn woykat bu wax ni wal Moustapha in shabahat afaaluhu afaala walidihi falayta bi zalimin maanaam Serigne Moustapha su fekkee ni ay jëfam dafa mingo ay jëfinu waajuram muy Seydou Cheikh Mouhamed ay Seydou Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum nekkul di tooñ parce que tamit wat sa watit wa wat sa watit wa maanaam nit ku nekk ka diri fa lay jaare rek foofu ngay jaar kon Serigne Moustapha mën naa wax ne dundam lépp jàngale la waaw lii Serigne Serigne Cheikh waxoon Serigne Babacar ni kalimaatuhu xutawaatuhu laxadaatuhu adaxat muqaddaratan wala tazila maanaam koo xam ay kàddoom lépp jàngale la lépp lu mu génnee rek nit mën na cee tabax dund àddunaam mën cee tabax dund àllaaxiram ay jéegoom itam jàngale la waaw ay géndikoom yëpp jàngale la moo tax boo koy nattale muy kàddoom muy jëfam muy ay géndikoom yëpp dafay nekk loo xam ni lu ñu mesurer la maanaam dangay ngay da ngay wax ni daanaka balaa muy génn dafa mel ni li muy defal nit ñi conférence mi def daf koy defal boppam ba noppi kaddu yi muy ñi daf koy defal nopp motax day nek lo xamni luñu la ba do ci de la wala lo xamni luy luy luy luy lor doomu des la doomu interpréter la luy jariñ doomu la ci ay euh, ci définition bu rek mhm. ci côté mën nañ ci joxe cadre comme ni nga ko laajee mom mo nek guide spirituel bu al mustashidin wal mustashidat moy murshidul am ndax fa tabarakallah jere nañ ci mat ñu bari ñu jàngale ñu bari jere nañ ci ñu bari yi tamit ñu netali ñu ñu ne ku melni suñu bay suñu mam Cheikh al hadji abdul Aziz tabakh ak suñu bay Seydi Mouhamad mustafa si Jamil bis dañu ñëw ci Serigne babakar si radiyallahu taala anhu niko ah Cheikh al Khalifa ñun daal dañoo bëggoon nga jox ñu ndigal ci Taysiir ñu génnee ko nit ñi di ko jàng di ci jariñu ñaari wax moo ci am ñenn ñu ne ah Serigne Babacar de jox na leen ko waaye dañoo dem yëkkati yëkkati mu diis ci ñoom beneen version bi ci am ñu ne ah Serigne Babacar ne leen Taysiir bi de dafa am borom te borom dina ñëw moo tax bi Serigne Seyd Mouhamed Moustapha Sy ñëwee taawu ko moo yaf toll ci moom mu génnee ko def ko ci ay cassette dem enregistré ko ci Euh, studio 2000 ba nga xam ni moom la waa ji moom 2STV yoroon laataa muy am télé élège mm. yaay mu enregistré ko fa jox ko njaboot gi ñu di ko jàng ci jàng bu mucc ay fa tabarakallahu léegi ñëpp ngi tay siir kon loolu teg la ci ni kooku mm. fa tabarakallahu ku am ambition la waaye tamit ku am yan la moo tax ci jamono boobu dañu wax nii kër gi ni mu demee woon mm-hmm. ay moroomam nekk fi ci li ñu mën a wax ci kàddu parce que comme que nit la dañ koy mën a dañuy mën a lu nitee ci moom mu ànd ak ay magam ak ay rakkam ci kër gi organiser benn daaira waaw di ci jàngalante di ci orienté jigéen ñi di ci orienté ñëpp bi ñu demee ba jëmmi jamono mu ñu gis ni mbir mi mi ngi am solo mu dem ci benn baayam bu ñuy wax Abdoul Aziz Sy Junior ci loo ko wax ni ko ah comme que jigéen ñi ñoom ñoom ñoo taxaw taxaw tem jël sëriñ Moustapha mu góoral leen kon nañ ko tuddee almustarchidaat yi ñu tuddee ko almustarchidaat yi bi ñu demee nag ak liggéeyam ak taxawaayam ba ci biir sëriñ Cheikh recevoir leen wax ni leen kon nañ ko def daairatul mustarchidin wala mustarchidaat kon loolu moom mooy indi turu daairatul mustarchidin wala mustarchidaat waaye depuis boobu ba léegi mën naa wax ni lu jiitu 73 lu jiitu 1973 ba léegi sëriñ Moustapha mi ngi nekk ci daaira boobu di liggéey ndax mooy juróom bi ñuy wax Seyd Cheikh Ahmed dafa am benn daje bu mu def benn conférence bu mu def defe ko fële ca dëkk ba nekk ci wetu cees mooy euh, euh, mu tuddati dëkk ba nekk ci biir cees xam naa dina dina ñëw après incha allah euh, def fa benn conférence bu am solo mu ne waaye nag remarque bi mu def comme que moom yàlla daf ko xiirtal mu nekk koo xam ni chercheur la mm-hmm. mu nekk koo xam ni borom taxawaay la ci diine waaye mu nekk koo xam ni nag kuy kuy xalaatal diine la waaw dëkk bi mu ngi tudd Kër Jëmb Kër Jëmb Njaay euh, bi mu bi mu ñëwee ci daje boobu mu ne ndaw ñi de ci réew mi perdre nañ lu lu war a ëpp dix ans ci nax nekk ci ay jaaxaan ak ci taxawaay ak ci ay taxawaal bi na sax ay xasida yu ko confirmer mu ne waaye nag may mag ñi may nañ leen pour ñu mën a tabaata depuis boobu ba léegi la Serigne Safa xar tànk dubayam fexe ba kàddug Serigne Cheikh moomu bañ laal suuf ilaa bi naa haada ci la nekk ci daayiratul mustarshidin wa mustarshidat ba lim ci def yëpp lim ci réaliser yëpp mu réaliser ko waaw defar ci ay góoru yàlla defar ci borom xam-xam defar ci ay borom leer defar ci ay borom martaba fa tabaarakallahu tey ñooñu buñ leen doon compter ci réew mi ay junni junni leen junni lañ fa tabaarakallahu loolu Seyd Seyd Mouhamadou Moustapha def na ko donte nag xëy na dañoo bañ a guddal ba mu jeex waaye bu ñu duggoon ci biir détail daayira bi dinañ la wax ni moom ku la ndax organisation passé wul nga am daaira utal ci mag ñi programme ñu leen di tuddee cellule père utal ci maire yi yaay programme ñu leen di tuddee cellule maire tuddee ci utal ñi ñu tuddee jigéen ñi parce que li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni fu l'islam ak di jigéen participer na ci Serigne Safa utal waa cellule féminine boobu programme ci biir daaira bi waaw kay ndeysaan jërëjëf oustaz Sidi li nga takkaraal ci Serigne Moustapha Sy am na solo muy njàngat gu rëy goo xayte ni daa pour bi ba fii mu toll nii xëyul xëy rek doon lim doon dafa liggéey ndax liggéey mooy jëriñee te it ku dégg ni nga waxee ci sangu tedd wi di Serigne Moustapha Sy xam ne lii mu am da ko liggéey moom lu ma jaaxal nag eh, Serigne eh, oustaz Sidi uh-huh. muy Serigne Moustapha Sy mooy sëriñ yooyu nga wax uh-huh. kenn ku ci nekk defar na la ci defarin goo xamante ni toggul ne la ba ne la bàyyil te ne defaru nga saayir defaru nga baatin mm-hmm. loolu noonu mm-hmm. maanaam ci ban liggéey la ko sëriñ Moustapha liggéeyee waaw sëriñ Massamba Seyd euh, Seyd Cheikh Mouhamad Moustapha hafidahullah wa yaw daraa dañuy wax ni nitu yàlla dafa am mm-hmm. ay méthode yu muy utiliser pour mën a yar ay njabootam dafa am benn nitu yàlla bu mag ci réew mi ñuy wax Cheikh El Hadj Omar al Fouti dafa wax benn wax bu am solo xam nga dañuy wax ni al amru bil maaruf wa nahyi anil munkar maanaam digle lu baax ak tere lu bon Cheikh El Hadj Omar ni ci charte an yakuna al amir wa an yakuna al naahi bi mustawa al xaqaiqi musaytarati ala zamani wal makan waaw maanaam kiy digle ak kiy tere dafay nekk koo xam ne yàlla daf koy dénk mu mën a xam fii ak fukki at wala fii ak ñaar fukki at lan mooy xew kooku bu fekku amoo jagle-jagle boobu doo mën a wommat jaam yi doo mën a defar jaam yi Seyd Cheikh Mahamad Moustapha nag yàlla jagleel na ko loolu maanaam mu nekk nit koo xam ne ku am vision la fa tabarakallahu ñun ñuy dund ci biir tarbiyaam yëg nañ loolu te xam nañ ko ndax léeg-léeg mu wax ñu loo xam ni fii ak juróomi at wala lu ko ëpp jamono mooy ñëw dëggal ko mu def mu wax tamit lu am solo mooy tarbiyati min wara il judur nga euh, da ngay dégg ci suñu Sénégal ñuy wax wax bu am solo naan xale yi judd ci ginnaaw mbay suñu mbay te mbay la ñu gëm waaye xale boo ci waxal mbayee maamam ndaxte yàlla mooy maye loolu kadaalika sëriñ su baax ci nekk Sénégal yëpp am na ñoo xam ni fekk ñu seen dund waaye tey boo leen leen tuddalee rek ñu xam ñu crise loolu jegle jegle boo xam ne yàlla moo koy def waaye nag jagle jagle boobu ci la sukkandiku ba mën a defar jaam yi parce que yàlla moo leen jox ñu am secret bu ñuy wommatee jaam yi waaye bu ñuy defaree jaam yi tarbiyatu min wara il min wara il xëcc maanaam di yar nit ki di ko orienté di ko jàngal te mosoo ñëw këram mosoo ñëw kër papaam mosoo ni ko ñëwal sama kër waaye nag en distance lay jàngale nit ki yar ko bali nekk ci moom nekk ci moom fa tabaarakallahu loolu méthode bu mel noonu la Mawlaaya Seydi Cheikh Mouhamed Moustapha utiliser ci biir daairatul Moustarchidine Moustarchidaat baraa na koo xam ni boo ko gisee ni ëskay mën na am musul teganteeg loxo Serigne Moustapha su ko gisee ci écran la ko gis waaw kay loolu nag jagle jagle la boo xam ne yàlla moo koy jox ay nitam mm-hmm. ñu di ci njaboot di leen ci tàggat di leen ci yar fa tabarakallahu jërëjëf oustaz Sidi ndeysaan ci kàddu yu am solo yi ci góor gu tedd gi di Seydi Moustapha nga xamante ni am na ñooñ ñoo xam ne ndeysaan musta toog ak ñoom ne leen baax waaye ku ci jàkkaarloog moom tàkkale ko sa sago loolu ñun am nañ ci firnde gu leer nañ ñi xayte ni góor yàlla ku ne ko jàkk xam ne kii góor yàlla la Serigne Moustapha di ñaan saa yàlla yàggal ko suñu kanam noo ngi siyaare ras kan moom moo ngi topp jotaay baax a baax di siyaare mboolem seen waa Kawsara 2 ñëpp noo ngi leen di siyaare baax a baax soono Ngóone noo ngi koy siyaare baax a baax Oustaz Sidi ñu jàllaat ci beneen pàcc ci euh, Seydi Moustapha Sy wax nga ko léegi léegi damay dégg tuuru kade ak seli féminin mhm. suma jiwmul mhm. ñaar yooyu noonu lan mooy seen différence <laughs> waaw loolu Serigne Massamba mhm. Ngom Bichri fa tabarakallahu loolu ay programme la ñu ñu def ci biir daayiratul mustarshidin mustarshidate maanaam ci organisation kilifa gi xam nga dafa am lu maamam wax mu jëmmal ko maamam Seydi Cheikh Al Khalifa dafa wax ni ay yu ndaw kase kase doyuñu ma ay yu mag kase kase doyuñu ma ñu ni ko sëñ bi lan moo la doy mu ni ay mag ñu jaxasoo ak ay ndaw waaw waaye loolu Serigne Moustapha def na ko mu nekk réalité waaye nag léeg-léeg nga ber ndaw ñi ci ruq defal leen loo xam ni du du bokk ak mag ñi parce que am na loo xam si mag dépassé na ko ndaw moo ci toll loolu moo tax Serigne Moustapha utal xale yi benn cadre ñu koy tuddee tuuru cellule des cadets tuuru cellule des cadets boobu xaw na am différence tuuti ak tuuru cellule féminine parce que bu dee tuuru cellule des bi ci la ñuy jàngal xale bi orienté ko yar ko maanaam xale yi ñëpp ñu ngi ci ñu ngi ci école publique yi di jàng ñu ngi ci école privée yi di jàng waaye nag ñoom dañuy jàngale kese dañuy enseigner rek waaye éduqué wuñu Serigne Moustapha nag bu xale yi dajooloo ci école bi une semaine mu jël leen benn mercredi wala benn dimanche ci kemtalaayu 30 minutes mu defal leen orientation bu mucc ayib waaw naka la ñuy dundee seen kër yi naka la ñuy dundee ak seen wayjur yi naka la ñuy dundee ak seen seen mag yi naka la ñuy dundee ak seen yi naka la ñuy seen waa famille yëpp ba bu ñu génnee ci kër gi dem ci mbedd bi naka la ñu war a dundee. bu ñu dajeeg mag naka la ñu war a maslante ak moom naka lañ ko war a jàppalee naka lañ ko war a dimbalee naka lañ ko war a mën jox cër loolu orientation yooyu ñun ngi koy def ci tuuru cellule des cadets yi. kay na nag bu ñu tuddee cellule des cadets bu ñu jàpp ni rek tuuru cadet kese la ñu am mais am na lu ñuy tuddee daaray ngoon ak ay yeneen daara yoo xam ni daaray encadrement la.

kon nañu jéem a dabaatal xale yi ci durant au moins mu tënk ci benn programme bu mucc ayib programme boobu ci la ñuy jàngal xale bi alquran jàngal ko ci hadis jàngal ko ci a tarbiya as suufiya jàngal ko ci xasiidam yi mag yi bind ñu jàngal ko ko ci waaye li nga xam ne actualité da di jamono surtout tendance yi perte de valeur valeur yi am yépp ñu mën cee dabaatal xale bi ci durant un mois boobu loolu Serigne Safa moo ko tëral ci biir daairatu Musalimina Muslimat yamu ci sax fa tabarakallahu tëral na yeneen muy lu mel ni va-va vacances et valeurs ngir lan ñu dabaatal xale yi ba tey ñu mën a def seen i compétition ci wàllu alquran ci wàllu tajwid ci wàllu génie en herbe ci wàllu ay sketch yoo xam ni yuy yar xale bi la yu koy encadre la ba yi fëkk jamono ci xale yi ci jamono yëpp ñoom ñu mën cee mucc kon loolu moo delloon ci cadre programme Sëriñ Day Kade ëpp na ko nag waaye temps bi moo ñu dul may ñu dugg ci yépp waaye ëpp na ko fa tabarakallahu macha allah oustaz Sidi nga wax lu am solo ci njàngalub euh, Cheikh Mouhamadou Moustapha si ma doon lu am solo ndax euh, gis nañ ñoo xëy te ci cellule yooyu nga wax. Mhm. ci lañ nekk ba tey ji am ci lu lu lu doy war. maa ngi ciy siyaare Adama Balie Sarr bi nga xëy te ni mu ngi tàggat ay ndaw ci euh, troupe théâtre goo xëy te ni boo leen xoolee sa yaram dana daw te lépp njabootu Serigne Moustapha Sy la <laughs> ñu ngi leen di siyaare baax a baax a baax baax mu mel ni Oustaz Sidi mhm. Serigne Moustapha Sy waa mhm. dégg ci génn góor mu ne boo ko musaan di seet. ñu ne la moo ngi kaw sóoróor ga kon loolu lan nga ñuy indil ci sababu kaw sóoróor ga waaw sëriñ Massamba Ngom Bichri mhm. loolu lu yéeme la maanaam sëriñ Moustapha mhm. dafa fekkee jamono bu doy waar jamono boo xam ni pour nga am dara ëllëg Mm-hmm. faw nga sàcc sa bopp ci nit ñi faaw nga nangu sa bopp ci nit ñi mm-hmm. te boobu dëkkuwaay bi mu nekkoon doy na waar doy na waar goo xam ne daanaka ñi ci ëpp li ñu favoriser woon mooy ay caaxaan mm-hmm. ay nuit blanche ay fecc ay nang parce que jamono bi loolu la laajoon te moom it mu yëg ni moom responsabilité bi koy xaar ëllëg mooy ndono gi fi mag ñi yor mu taawu ko am na loo xam ni nag ku ko war a taw ëllëg faaw nga téeñal ko mm-hmm. téeñal boobu moo waral mu daan daw di làqatu ci sooroonu maamam muy sëriñ Babacar Sy taala xam lan la fa daan def mm-hmm. di fa lenn lu dul di xuutal gëstu mm-hmm. di nafar daaraam di jàng di jàng ndax am na benn mbokk boo xam ni mu daan dem da daan sañse moom sëriñ Moustapha sañse bu yéeme puuro parfum fa tabarakallahu bu génnee ñu ni doomu Cheikh Tidiane bii noos rek macha allah noos rek fekk ndax na leen am benn mbokk boo xam ni moom lay jox bagage yi mu war a jàngee téere yëpp su ko defee kooku wiiri ci jàkka ji dugalal ko bagage yëpp moom mu jaari wëri jaari ca beneen porte ba daal di yéeg nee na su ma demee du ma taal làmp parce que su ma taalee lampe ñu xam ne ko am na ku fi ne te mën nañ la perturber mën na la yàqal waaye muy taal sondeel moo tax mu ne gisee may sol sama lunette yi nga xam ni lonet yu euh, euh, yi maanaam ki nga xam ni bëtam gis-gisam dafa néew mooy myope li tax mu di ko sol mu ni li mu doon daj ci jàng sondeel daanaka moo yàq bët yi ba fa tabarakallahu nga gis ko euh, collecteur yooyu muy sol mu nekk yu yéeme fa tabarakallahu loolu bokk na ci li ko waral foofu daal làqatu gi mu fa daan làqatu ngir yokk xam-xamam la yokk gëstoom la am xam li koy xaar ëllëg mu préparé ko waaw mu préparé ko kon loolu moo waraloon yéeg ci soorool ba tabarakallah jërëjëf oustaz loolu moo waraloon ah, sang bi daan ci kaw sooroor ba lépp lu tax mu doon yéeg mooy liggéel yàlla xam ni am na lu mu war a teew ci yoon wi ci tarixa bi xam ni am na lu mu war a service ndaw ñi moo waral mu doon tëju di ngir liggéeyal yàlla ndax moom xamoon na ni yéen bi war a tegu ci kawam kon dañ koy ñaanal yan bi oyof toll ci moom waaye Oustaz Sidi uh-huh. dañuy seetlu leen ci Serigne Moustapha Sy uh-huh. bu ñu génnee chaque année uh-huh. gàmmu chaque année bu génnee gàmmu rek di nga gis réseau yi kenn ku ci nekk di ŋàññi Serigne Moustapha Sy ndax moom waxam moo leen déranger wala jëmmi Serigne mustapha Sy mo len déranger war a Serigne mustapha Sy mo len déranger ba sa buñu génné gamu rek kenn ku ci nek duñ xol li nga xamné mom la wax te muy jëriñ waye li nga xamné lu lu lu lu lu kenn bàyyiwul xel mom lañuy génné diko ci ŋàññi ndax lolu mom nang nga ciy dikkee waa Serigne Massamba Ngom euh question boobu li ma ciy tontu danaka dama koy jëlé ci ay waxam dafa mës dajé mom moom Mawlaaya Seydi Cheikh Mouhamadou mustapha Abdou Diouf président de la République du Sénégal

mu waxtaan ci benn jataay wax ni man Moustapha actuellement fi ma toll saaru alquran bi ñu ma sponsorisé mooy suratul mujaadala xam naa suratul mujaadala moom ñi jàng alquran xam nañ ni ku ko liir diñ ci dégg daa nga sant gu bëri mu ni parce que boo tollee ci martaba boobu ñu sponsorisé la saar boobu loo wax rek ñu contexte waaw loo wax rek ñu indi ci ay werante waye li nga wax sank dafa nek lu am solo nit bu waxe bala nga critiquer limu wax xaaral ba geustu ba xam limu wax lan la ba noppi waaw parce que Sénégal jikko yi Sénégal la ñu bal ma manam bu nit waxe duñu xol surtout wax bi lan la waaw lan lañu xol lutax mu wax nangam te imam shafi'i dafa wax lu am solo dafa wax lu am solo neena weddi waxu jambour ben ponk la ci bokkaale yàlla waaw ben ponk la ci bokkaale parce que ki ngay weddi xamo lan moy source xamo fan la jele limi wax xamo yi tamit li tax mu wax ko ta xamo wax ji lan la mën safa ndax nitu yàlla moy tollu fo xamni lu mu wax rek njëriñ la waaw lu mu wax rek njëriñ la waye nak lolu la gharwa لا غروة نخ يا subhaanahu wa taala sax ngeen baal ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bërki démb ngeen dégg ay ñoom Charlie Hebdo ak ñeneen ak ñeneen ah, ah bukki yi dëkk France yëpp di teg ci deram bi leneen pourtant yonent bi mu fi kañ la waaye nag ku doon ku doonul nit rek doon naa le mbóol yaa ngi ca waaw dañuy nettali fa tabarakallahu euh, benn yaayi daara bu am solo dafa ñëw ci soxna Sofia mi nga xam ne moo jur Serigne Mustapha euh, mu toog ak moom muy ñaanal Serigne Mustapha mom soxna soosu diko ñaanal diko ñaanal ba ci yag mu ni Serigne mustapha yàlla bu mu am non bi mu waxe lolu soxna Safi mi nga xamni mo jur Serigne mustapha me ni dënn bi dafa rëcc waaw mu ni ko lo wax mu ni ko yàlla bu mu am non mu ni ko yentibi sallallahu alayhi wasallam amul won non mu ni ko ah kay mu ni ko sayyidna Cheikh amul won non mu ne ko aha kay mu ne ko Cheikh El Hadj Omar amul woon noonu mu ne ko amul woon noonu mu ne ko aha kay mu ne amul woon noonu mu ne ko amul woon noonu mu ne ko amul noonu rek du leen doon moo tax fa tabarakallahu loolu mënul ñàkk ci mission nitu yàlla képp koo xam ni yàlla moo la tax a jug mission yonent yi sallallahu alayhi wasallam moo la tax a jug daa nga am kàddu gannaaw parce que li gën a métti mooy ñoo xam ni seen xel matul seen xam-xam matul di la di la xas di la saag yonent ñaata yoon la wax ñu ne ko asatirul awwalin innahu la majnun hmm. ah fa tabarakallahu kon loolu rek moo tax waaye daal nañu jàpp ni lépp loo xam ni génnee na ko rek hmm. njariñ na waaw pour askan bi yëpp hmm. waaw lépp loo xam ne génnee na ko rek ak baat bi nit ku nekk noo ko mën a taawoo xamal ni am na ñoo xam ni يونتي بي صلى الله عليه وسلم مولن يوبالتي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى موتاخ nga بال ما تي غودل بي صاح تي بن وقتان بو نون ديف تي لاندمي تبسكي لوبليس فله نينا دا فا ام بن موك بو نيو نيكو ا لامبي واخ اوبي نا تي سنغال وايي كو نوبي نك دو دان لامبي واخ اوبي نا تي سنغال وايي كو نوبي دو دان سيري عثمان تونتو كو نيكو مونيكو دا فاي فك ني كي واخ ñu di ko waxloo wala ñu di ko noppiloo mu ni waaye am na ñoo xam ni kenn rek moo leen sañ a waxloo moo leen sañ a noppiloo mooy suñu borom subhanahu wa taala loolu nag firndeel na ko ci gàmm gi ñu wees mu ni suñu baay ba suñu abdaziz si Sy euh, junior da daan wax naan am na ñoo xam ni bu ñu naree noppi jar na ñëpp cotiser ngir ñu wax waaye am na ñoo xam ni bu ñu waree wax jar na ñëpp cotiser xaalis bu bëri jox ko pour mu noppi fa tabaarakallaahu moom nag dafa bokk ci ñi war a wax. jërëjëf oustaz Sidi daa bokk ci ñi war a wax jamono ji li ko yàq loolu da caa bokk mm-hmm. ñi war a wax danoo waxul. ñi war te wax rek kay wax nag moo war a jël di bëri waaye kan nit ki buy wax bul xool la wax xoolal lam lay waxal da muy nga le mandikat bu di wax sax mandi gi mu limi wax te muy njëriñ nga jëriñoo ko waaye nit Sénégal dañoo toll fan xam ne bu la xasee bañ rek mënu doo wax leen saf te amaana sax bañ giñ la bañ mhm. yàlla xam ni koo ci waxul sax moom <laughs> mu bañ la sax du ko wax dañ koy ñaanal borom su borom suñu xasidi dañuy yéegaat tuuti ci kaw. waaw jëm ci Serigne Cheikh. macha allah ci Serigne Cheikh. Mhm. ci taxawaayam. Serigne Cheikh ak bëggam tarixa bi ndax kañ ko dutee mooy Cheikhuna Tidiane. Chérif dañ ñu dikkal ci sëriñ Cheikh ak diggam. Serigne Saalix ndax jotaay bii jotaay yu Bamba fépp la ci fépp ci lu baax ndax dañuy gis gàmmuk Serigne Moustapha Sy conférence Serigne Moustapha Sy mboolem turux yi képp ku namm lu baax da nga ko fa séen képp ku namm lu baax nag da nga ko séen ci keppaaruk Serigne Moustapha Sy lan nga ñuy dikkal ci Serigne Cheikh ak Serigne Saalix Mbacke Oustaz Sidi dugal sax ci góor gu yéeme ndeysaan muy asayid Cheikh Ahmad Tidiane baram yushabbihuni min baad kulli mushabbih ndeysaan mu ni ku ne ñu ngi may nduróole ak moom ku ne

lim ko way du jeex Serigne Cheikh nee na way na man Serigne Babacar Sy way na Serigne Cheikh way na Cheikh ba amatul lim koy way mu koy way ci wolofal naan wa Cheikhu Ahmad Tidiane mayam nga wër na ci réew ya xutbul wujudi fa cheikhi yàllaa ko may mayu maam ya fa man lu ya fa man ñu laazimu wa tof ko moom dëkkandoom ya topp ko topp ko ba woy ba woy bi jeex woy ci olofal doole ci arab ndax cofeel gi mu am ci moom cofeel googu nag la ko Seydina Cheikh faye moo tax Serigne Cheikh biñ ko wéy juróom bu jigéen muy soxna sukkan mhm. nga xam ni nitu leer la nitu xam-xam la nittu daara la ndax bëri na ci kër gi ñoo xam ne moo leen jàngal alquran mhm. moom soxna Aïchatu kan moom moom bi mu tollee diggante dañuy wax ne Seydina Cheikh dafa feeñ Serigne Babacar ni ko gan gi di ñëw de tuddee naa ko sama bopp moo tax sax werante yi bëri nañ ñu naan Serigne Cheikh dafa indaale turam ci loxo ci ci côté ndeyjooram la nekk ci mbagg ginnaawam la nekk déedéet waaw indaalewul turam lu ñu bind ci yaramam waaye turandoowam moo feeñu woy juram ni ko tuddee naa ko sama bopp moo tax Serigne Cheikh sax wax na ko ci xaas yi tax daal ni fajazallahu fatan bihi sammaani maanaam maa ngi sant góor gi nga xam ni moom mottali sama yéene turandoo ci man mooy Serigne Babacar Sy waaw ok mm-hmm. mooy ñu ni maam Abdou Aziz Sy Dabakh bi Serigne Cheikh juddoo parce que Serigne chef pour wax la mbiram dafa yéeme sept ans lañ ko ëmb juróom-ñaari weer mu gane àdduna maam Abdou daal di taw si ñëw daal ni Serigne Babacar kii de xanaa maay borom tur bi may borom mu ne ko kii de am na tur ba pare ndax kilifa gi tuddee na ko boppam muy Seydina Cheikh maam Abdou ci saasi mu jënd ay berne ay mbaaj yëpp sànge ko ko ba pare di ko tagg Serigne Cheikh ni bañ ma sàngee baaji bi maa ngi koy cey fa tabarakallahu kon kooku nit la koo xam ni fa tabarakallahu ku yéeme la moo tax ñu tuddee ko almaktum almaktum mooy koo xam ni ñëpp umpe nañ mbiram ku yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallahu kooku nag mooy bàyyi Serigne Moustapha moom waxtaan mhm. relation wax xam nga tudd nga sànq suñu maam euh, Serigne Saliou Mbacke bu nekk góor gu yéeme it moom it mhm. góor gu not jamonoom góor goo xam ni nit ñi xamuñu ko rek ba mu dem fa tabarakallahu mm-hmm. parce que yàlla léeg-léeg mu def lu mel noonu mm-hmm. ñoom ñaar ñu nekk ñoo xam ni ay wéyjur lañ ak ay doom mm-hmm. waaw ndax Serigne Cheikh saa bu ñëwee ci gàmm daal ne suñu baay bu baax ba Serigne Saliou suñu baay bu baax ba Serigne Saliou yàlla doxal cofeel boobu seen diggante ñoom ñaar ñu di ko doxalante di ci demalante di ci diggalante te néew nag ñu ko xam parce que Serigne Cheikh daf ko nettali ci euh, Serigne Fallou ak Serigne Abdoulahad mu ne ko am na diggante yoo xam ni nañu fexe ko ñu bëri bañ ci teg seen bët parce que am na ñoo xam ni yàq rek moo leen ñor waaw moo tax ñoom léeg-léeg seen diggante yi mm-hmm. fa tabarakallahu diggante yu yéeme la waaw moo tax ñoom ñaar cofeel googu doxal seen diggante mm-hmm. ñiy yónnante seen kàddu yu yu yu neex yooyu seen kàddu yu yiw yooyu seen kàddu yu baax yooyu nga xam ni njaboot bu ko for rek fa tabarakallah tàqamti ko ko yëg ni leer dëgg dëgg dëgg nga mos fa tabaarakallaahu mu sopp sëriñ Saaliwu lool sopp ko lool mm-hmm. waaye tamit bëgg ko lool fa tabaarakallaahu yaakaar naa suma ma juumul gàmm 2001 la mm-hmm. mi ngi koy wax euh, Thierno Madické mm-hmm. naan ko boo demee neel suñu bàyyi bu baax ba mi ngi joxoon yóbbante bi fa tabaarakallaahu li ñu am yëpp ndona li seen ndona la parce que suñu bàyyi bu baax ba suñu mam ju baax muy Cheikh Ahmadou Bamba xam nañ lan la bokk ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa tabarakallah buñu ko temps bi mayon silsile biñu ñu bokk ñoom lañ ko tudd ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam ndax xam nga Serigne Cheikh dafa musa am kuy wax ba tudd Serigne Cheikh Cheikh Ahmad Tidiane Sy Chérif ñu ni ko Serigne Cheikh mi si mu ni dedet Chérif la wax Serigne Cheikh ne ko man Chérif la parce que Fatimatul Ansar motax top boko topé ñoom ak maam Cheikh Ahmadou Bamba ak Serigne Saliou yëpp ñoom ñoo bokk benn benn famille fa tabarakallahu wa fa tabarakallahu moo tax ñoom daal seen seen mbir lu yéeme la xam naa ni moom <laughs> a cee sax sori na sama waaj moom fa tabarakallahu boo tuddee maam Saliou rek mu am fu mu am fu mu yéeg waaw fa tabarakallahu waaye daal ñoom daal ay ay ay soppe pir <laughs> jërëjëf euh, oustaz Sidi ndeysaan li nga ci euh, Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum am na solo sunu waa ji Serigne Salih li nga ci wax rek ndeysaan moom daa sori fi ñun loolu macha allah li nga ci dikk am na solo mu mel ni valeur yooyu Oustaz Sidi valeur yooyu mag ñi amoon daan ko jëflante ndax dama dégg ci ah, Serigne Cheikh mu lu amul woon ñaaw bu amee rafet dëgg la dëgg kon ndax loolu teeñoo rafetal ndax al jazaa'ul ihsaan ilal ihsaan kon yàlla xatul Serigne Saliou Mbacké dana du fekk lu yàlla yaatal mu koy xatal kon lu xat di yàlla te gamugi, ngeen gàmmu gii ndeysaan di ko Serigne Modou Moustapha Serigne Moustapha si waxee teraanga yi njëkk ci moom ci Cheikh Mountakha la jógee kon yooyu ndaw ñi nañu bàyyiwaat xel ci kilifa yi fonk sa kilifa ngi kilifa ak ñu wax sa kilifa lu ñaaw bul wax kilifa ak jàmbur lu ñaaw ndax ñun mënuñoo muus ak waane ba leen bokk ñu dagu ko du kenn mukk nan ci bàyyi xel te gën a wormaalante ngi jëmmi yàlla gën a fonkate ngi jëmmi yàlla ku xool lii xam ne lii daa rafet dafa rafet oustaz Sidi te suñu xool sedd na ci te it seen képp comme lu baax ñor na la xoolam dina ci sedd oustaz Sidi ñoo ngi nuyu sama xarit Seck Melo Kasaka Abdou Aziz borom Moussa TV ñoo ngi leen di nuyu baax leen siyaare baax a baax a baax ñaan saa borom yàlla defal leen tawfeex saas mhm. di ñaanal kenn ci ñun nag eh, eh, ko xëyta sunu xarit la su moom dogal mu jiituñu ci saayir muy docteur di ko jaale mboolem seen waa Kawsara docteur danga koy jaale Boleh seen waa Kawsara di ñaan saa borom yàlla tapi jika tabbi ci kawam ndax moom kenn la ci ñun du ko ñuy fàtte oustaz lan nga ñuy ci gu gi Cheikh ci ci islam lan mën ci wow waaw Serigne Massamba di sini man balaa maa sori sax dama danga maa toussé ndax da nga tudd sama baay wallaay muy Hadj Ibrahima Diagne ndeysaan fa tabarakallahu ni nga ni nga ko waxee rek yàlla yóbbu ko ci zahir wallaay ndeysaan fa tabarakallahu mu nekk koo xam ni mënuñu mhm. euh, xëy bis te duñ ko ñaanal ngir yàlla cofeel i mu amoon ci ñun ak taxaw gi mu gi mu taxawoon mhm. parce que ñun ku ñu gis sax da nga yaakaar ni docteur moo ñu jur ci gañoo ngir yàlla uuf gi uuf ak suñu njaboot yëpp ah damay wax rek wax bu boo xam ni seede la ci moom bi ma jëlee soxna waxuma la sax sama jël soxna ndax lim ci taxaw amul kenn koo xam ni taxaw na ko ci waaw amul kenn koo xam ni taxaw na ci bii ñu jëlee soxna ba yëpp sotti daf ma woo ba ñëw mu ni ma nekkul ñaari nit ci benn kër dafa metti fataw wallahi la azim ñaari nit ci kër dafa metti yaag sa soxna yëpp ngeen xëyee ndékki añ réer dinañ ko def def seesi fii sama te saa bu ñu ko deful mere naa leen wallaay azim léeg-léeg ma tëdd kër ga sax téléphone soxnaam soxna as maa ngi koy sama yaay jooju nañ fa tabarakallahu as wadd ak euh, jaaraale ci nuyu ñoom samay soxna ñoom soxna dégg ko ba aan fa tabarakallahu ak soxna Magué Dieng maa ngoone tudd ko sànq ñoom ñëpp xëy na ku lim doo doo juum waaye da nga dul matal fa tabarakallahu amoon nañu yéene ñoom ñëpp ku nekk ñu tudd leen mais xëy na incha allah bu ñu ba ci jeextal ba ñu asu taxaw ci loolu moom it fa tabarakallahu mhm. chaque jour su fekkee ni xaw naa dig digal ba ñëwuma sax day tibb yónnee ci kër gi kon lool nag wax dëgg yàlla ñu di ko seede di ñaan yàlla yal na yàlla woyefal suuf ci kawam yal na yàlla yeesal njëgalam ci moom yal na ko yàlla xaare aljanna njabootam yi mu fi bàyyi yal nañ ko sut ay fan ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañ ko sut ay fan yàlla may leen xolu muñ te yàlla teg leen loxo wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal ak yeneen ñis des ñëpp te jiitu suñ ñoom yaay fàttloo ak ñeneen ñëpp xëy na bu ñu limee duñ fi jóg waaye ñoom ñëpp ay ñoom tànn sala fa tabarakallah ñoom ñëpp ñu leen di dugal ci cadre boobu rek di ñaan yàlla yàlla yeesal seen ngir mën ah Massamba bu ñu ñëwaatee ci góor googu muy Asir Cheikh wax dëgg yàlla góor bu góor bu yéema góor gu not jamono fa tabarakallahu sànq wax naa ko xam nga dafa am benn xasida bu mu def tegleel ko turandoo muy Seydina Cheikh Ahmad Tidiane Sarif al-Fatimi mooy fa ilayka fa ilayka yabna Muhammadin naadaani shiyamun tuhaqiqu jawhar al-insani fa rakibtu nahwa dahra kulli ajibatin min hikmatin wa malihatin awzaani waqti xasida bi fa tabaraka allahu yéeme gi mu yéeme waaye melal gi ci melal turandoom ak yàkkamti parce que Serigne Cheikh dafa daf ñuy tëpp juddu rek bi yàkkamti mu fekk si ko seet si ko ko mhm. bëgg ko fob indi ko mu ne ko déedéet parce que soo ma fobee day day yomb trop te du am ay jeexital kon bàyyil ma rampe xuus ba agsi ci yow moo tax farakibtu ndax waka dëhra kulli ajibatin bi may ñëw ci yow gannaaw lépp lu yéeme jaar naa ci min xikmatin wa malihatin awsa kooku mu nekk góor goo xam ni fa tabarakallahu euh, mbiram yéeme na ah bu dee cadre liggéeyam nag fa tabarakallahu amul domaine booy tudd ci réew mi lu dul ni kilifa gi euh, technique maanaam am na lum ci def ci domaine boo tudd ci réew mm-hmm. dee ci wàllu diine ci liggéey kenn liggéey lu toll bu dee ci wàllu politique

tubaab bi doon wax naan sëriñ daal kaalaam ak kurusam rek satalaam daf ko dindi complexe bii nga xam ni léeg-léeg kilifa diine dañ ko doon am mu dindi ko waaw parce que moom nettali na ci boppam mm-hmm. te seede yaa ci ci internet la ñu waxee mm-hmm. mu ni dafa bind lettre général de Gaulle ni ko benn dañ ñuy mën a yor mënoo ñu yor nga bàyyi jox ñu suñu indépendance parce que indépendance kenn du ko naxee kenn nee bi lettre bi biko ko général de Gaulle jotee def ni ki kat ki ma bind lettre bi ben réew mom nek mo fa ëpp courage wala boog yaramam xelam neexul parce que fi ma toll nek nekk général de Gaulle ak lima incarner incarné instruction yëpp nek ci sama loxo mu am sañ-sañu bind ma lettre bi mo ëpp courage ci réew ba mu dëkk wala bok xel mi neexul waaye mu ñu boobu bi ma koy def responsabilité rek moo taxoon xam ni responsabilité du du tuuti waaw responsabilité du tuuti kon loolu nag amul tamit kilifa diine booy tudd ci réew bi te Serigne Cheikh am amul relation ak yow. macha allah koo ci tudd rek. fa tabarakallahu am na relation ak yow wax na ak yow jàngalante na ak yow parce que nee na mag ñi fi nekk ci réew mi yëpp dama leen doon rat. ku mel ni Alhaji euh, Saïdou Nour. ku mel ni euh, maam maam Fallou Mbacké. ah ñu mel noonu nga xam ni ñoom ñoo taawoon réew mi nee na ku ci nekk sama sama sama dama laa defoon doomu bàjjen. ak doomu doomu nijaay nee na di leen ratt rek fa tabaarakallah moo tax li ko yàlla sédd yàlla sédd ko cër la jërëjëf oustaz Sidi ci euh, waxtaan wi am solo bi ci euh, góor gi Serigne Cheikh mu mel ni dañuy euh, xuusaat mel lu ñu ci waxtu daanaka moo ngi yegg ci càppandaw ga waaye ñu dëkk ci lenn rek ci Moussa Sidi seenu jotaay mm-hmm. seen mbir doo ko dégg ci rajo doo ko dégg ci télé waaye da ngay jékki-jékki rek gis ba samp nga jékki-jékki rek gis mbooloo samp nga ñu mel ni yàmb yoo xamante ni doo xam noo koy mën a tënkee te doo doo dégg ñu ne bis nangam dañuy daje nangam loolu jaaxal nañu bëri man mii bokk na ci ñi mu jaaxal loolu noonu ak it socialu Moustarchidine daayiratu Moustarchidine seenu social seenu doxalin loon ci tënkee ci mbir yooyu noonu ci gën a tënk ndax li ñu tëral di waxtu daanaka moo ngi waaj a mat waaw xëy na ñu tudd ci ñu tënk rek ndax loolu développement bu bu yaatu la laaj yéeme la waaw bu yaatu la laaj maanaam lépp dafa dellu ci cadre organisation mhm. Serigne Moustapha dafa organiser ay njabootam mhm. lu nekk nag dafa am lu ñu tuddee érage ci daayira bi maanaam man bu nee membre laa ci daayira bi. nekk oustaz ci daayira bi. Mhm. aw ma sañ-sañu joxe information. dëgg la am na keneen koo xam ne moo sañu joxe information. wallaahi kooku nag am na ku ko koy jox. am na ku mhm. koy jox ba mu àgg ci sëriñ bi. loolu la sëriñ bi tàggat ci ay njabootam. moo tax. kooku nga xam ni moom lañ jox information bi muy président section de passage maa ngi koy nuyuwaale muy xaaji Moussa Diallo muy suñu président section ak ñi ko jàppale ci liggéey bi yëpp ñoom Moustapha Diop ak fa tabarakallahu ñoom Samba ñëpp rek ñoom Cheikh Niang fa tabarakallahu ñu leen di nuyuwaale de passage dégg mhm. moom sëriñ bi yar na leen ba tey jii Moussa bu tëddoon ci lal mhm. ñu baal ma ci kàddu bi mhm. tëdd ak soxnaam sax ñu woo ko ki ko war a jox information woo ko ni ko balaa fajar gi di jot na ci membre yëpp jot. Moussa nelawam jeex na. dana fexe ba balaa fajar képp kuy njaboot nga jot ci information bi. macha allah moo xam ko am téléphone la moo xam ko amul téléphone. te nag rawatina bu nee information bi du jaar ci téléphone. porte à porte lay def. ba matale ñëpp. loolu nag sëriñ bi lu jag-jagle bu ko yàlla jox la mu tàggat ci njabootam. bu dee ci cadre social bi. sëriñ Moustapha dafa créé ci biir daayira bi.

fa tabaarakallaahu hôpital yi prison yi yëpp daayira bi dafa am ay ndimbal yu mu fiy def xanaa nag fi mu wuutee ak ñeneen ñi mooy daf ko dul médiatiser comme ñeneen ñi ni ni koy defee waaye tey hôpital madame Thiam bii mm-hmm. ñu jege lool boo fa demoon laajte ñu ni la daayira bi ñëw na fa def fa ay don dimbali malade ya fa nekk fa tabarakallahu parce que ndimbal gi yamul ci daayira bi rek waaw da mais rek dafa génn ci daayira bi ndax sa Safa nee na sama yitte mooy fépp fu gor nekk am aajo ma faj ko moo tax aw ma compte banque loolu nag ci la tënk njabootam ba tax action sociale boobu di liggéey ci biir daayira bi di defar diggante yi fa tabarakallahu di jàng damm-damm yi di mhm. dimbali nit ñi ci école yi ci hôpital yi ci prison yi ak ci lépp fa tabarakallahu kon loolu daal organisation Serigne Moustapha ak ak jàngale macha allah hmm. macha allah oustaz Sidi ci loolu nga développé ci thème boobee hmm. macha allah Serigne Moustapha Sy ñaan saa borom yàlla yàggal ko suñu kanam niñ ko waxee woon rek ci njëlbéenu tàmbari jotaay bi mm-hmm. moom de kenn ci ñun nu mm-hmm. sopp ko te soppantuwun ko ñu jàpp ko te jàppantuwun ko nu bëgg ko te bëggantuwun ko di ñaan ba ca kanamu yàlla ak yonent bi ba ci kanamu Serigne Touba ndax jofeel ah, yàgg naa dugal nit fu ne moom Serigne Moustapha Sy dane mm-hmm. kañaan lu mu yàgg-yàgg ci xol bis dana jot suñu borom génne ko mbaax Abdou Aziz noonu la demee nit kii mhm. ak kum mën a doon mhm. suñu borom li mu def ci yow mhm. nangul ko ko te yàlla ndax cëru nit lu ay bëggit bëggit ba fa fa yàlla defaree yàq dafa àggul te it nag oustaz koo xamante ne bu tàngee mu daw ah. bu seddee mu ñëw ah. ka koy ñàkk ñàkkul ka koy amit amut ah, ka koy ñàkk ñàkk ko ka koy amit amu ko kon oustaz am nañ mbégte bu baax a baax a baax a sant nañ ci soxla la woo la nga bàyyi sa itte yëpp doon doomi daara yor daara di jàngale yor daayira bi ci lu ci bëri di tarbiya donga yi kon loolu tawféex la la ma ne woon Serigne Cheikh Serigne Moustapha si bët gi ma koy xoolee mooy bët gi may xoolee Serigne Salih ngir lan tarbiya gi Serigne Salih moom la ñuy xoolee Serigne Moustapha kon oustaz uh-huh. kàddu yi nga xayte ni moom la ñuy tënkee jotaay bii uh-huh. kàddu yi nga xamante ni kàddu tàggatoo la waaye du loolu kàddu tàggatoo nga xayte ni uh-huh. buy yàgg la na faaw ñu di kat fii incha allah incha allah ah Massamba wallahi lazim ñoo la gën a bëgg bég nañ ba suñu mbégree fu mën a yem wallaay ndeysaan te sax tey dafa njëkkul ñu bég ci yow parce que euh, suñu benn waajur suñu imam Samba mhm. day wax naan nit mhm. bu xolam rafetee dara jomb ko fa tabarakallahu ma Samba mhm. sa xol ma moo rafet ndax it euh, yàlla baaxe la nga tënku fi nga tënku nekk ci keppaaru maam borom Touba waaye terewul it nga teg sa bët ci Seydou Cheikh Mouhamadou Moustapha loolu mbaax la loolu yaatu la parce que waaye nag xam ni ndono li benn la waaw ndono li benn la loolu moo ko waral moo tax yooyu dañ lay ñaanal yàlla fépp foo bëgg a àgg yal na yàlla àggale la fa fu kawe sa njort yal na yàlla sàmm la yal na yàlla mottali yéene yi yal na yàlla aar la yal na yàlla làq la fa xalaatu yàqkat àggul ak pexeem dugal ci njaboot gi yëpp suñu euh, télévision bi di Kifne TV fa tabarakallahu yàlla na dem ba bokk ci télévision yi gën a mag ci àdduna bi waxuma ci Sénégal de waaye ci àdduna bi parce que wax dëgg yàlla lépp njariñ la fa tabarakallahu lépp njariñ la ah samba ah xëy na cet gi rek mooy gàtt gi cet gi rek mooy gàtt gi <laughs> waaye daal ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp ku lim rek doo matal waaw dañ naan ku lim juum waaye de ku lim doo juum waaye da nga dul matal ba fa tabaarakallaahu ñi ngi sant ñëpp wax mm. dëgg yàlla depuis bi ma waxee émission ba léegi ma lancé ko daanaka vendredi xaw ma samedi laa ko lancé ci Facebook bi. ak ci WhatsApp. macha allah wallaahi alazim sama WhatsApp baa ngi nii. chaque jour nit laaj ma kañ la. numéro bi nan la. nan la ñuy fexe ba dugg man bi nag. Ah, ci YouTube bi na après daal ñu jéem a fexe suivre mi émission bi. kuy vi fa tabarakallahu ñu daal koy vi wax dëgg yàlla. fa tabarakallahu dama doon xool sama contact yi ñii vi ak ñi envoyé message. wallaahi ëpp nañ téeméer di dem. <laughs> kon ñoom ñëpp ñu leen di sant di leen gërëm. ah di sant tamit suñu uh, suñu wéyjur suñu wayjur bu góor suñu wayjur bu jigéen ñu di leen sant di leen ñaanal yàlla yàlla guddal seen i fan fa tabaarakallah bàyyi leen ci kanamu njaboot gi di beral nuyoo tamit suñu soxna yi ah waa kay fa tabaarakallah ñun ñëpp <laughs> ñu ngi leen nuyu soxna umul xayri soxna ndey kumba fa tabaarakallah soxna ndey assu soxna euh, euh, roqee ñang fa tabaarakallah passage maa ngi koy nuyu moo ngi ci ba ci Espagne moom it ak sama doom ya fa nekk yëpp fa tabaarakallah di nuyu tamit waa Tiwaawan ak ña fa nekk ñëpp suñu yaay yaag ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu soxna Yacine aussi tamit ci soxna yi la bokk Moustapha Oustaz Moussa ñu jóg asatisa yëpp ñoom Cheikh Gueye ñoom Imam Youssouf fa tabarakallahu di nuyu waa section bi yëpp temps bi moo xat di nuyu sama mbokk yi waa <laughs> Louga waa Kër Ndiouga ñëpp ñu ngi leen di nuyu fa tabarakallahu ñoom it wallahi alazim chaque mm-hmm. jour ñu ngi woote affaire bi kañ la ah, fan la nangam naa ban télévision la fa tabarakallahu ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu teg ko ci loxo soxna nguraloo rek muy suñu rakk moo jotal ko ñëpp fa tabarakallahu ah Massamba wax dëgg yàlla ah ñu ngi nuyu ñooñu nuyu fàttewuma sama mag yi ñoom euh, Pape Malick Diakhaté ak ñoom Pape Modou ak sama magu jigéen bopp wax ndeysaan soxna Faat Diakhaté ñëpp ñu ngi leen di nuyu wax dëgg yàlla ku lim rek da nga dul da nga dul matal waaye doo juum du nuyu nag dëkkandoo yi ci koñ bi yëpp mhm. wax dëgg yàlla ñoom Baye Dieng ñi ay soxna ak mhm. ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu ndax ñoom ñëpp ñu baax lañ ndax nit bu fekkee saa boo ko gisee nuyu ko jox ko cër mhm. di ko ñaanal dund ak sutura ku baax la fa tabarakallah ñu ñëpp ñu ngi leen di ñaanal di ñuy ñaanal waa Kifne TV comme ni ñu ko ñaanee sànq di ñaanal suñu jëwriñ bi Massamba fa tabarakallah taxawaay bi rafet na liggéey bi rafet na ñëpp daal ñu ngi leen di nuyu ku ñu ci tudd rek ñu xam ni xel mooy fattu ak temps bu xat waaye fa tabarakallah ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen tàllal suñu loxo xol di ñaan sàkku ci yéen ñaan rek di ñaan yàlla mott bi yëpp ba buñ fi dajawaatee jàmm insha allah ndeysaan jërëjëf oustaz <laughs> ndeysaan am nañ mbégte bu baax ci kàddu yi ak ci euh, ñooñu nga lim doo ngi ñaan saa borom yàlla defal leen tawféex amaana amaana ñooñu rek a tudd waaye ñi nga waroon tudd bëri nañ ba yegg ci loolu ndax góor gi ñuy waxtaanee moo toll ni ni mel te it oustaz kooku xajul ci benn jotaay moom dañ koy ñaanal sa borom yàlla <laughs> yàggal ko sunu kanam ah Fat nga baal ma de fàttewu ma sama sama ñaari cheikh yi bisimilah xam nga ñoo may seq ci gauche ak droite <laughs> macha allah mooy Samba Kane ak Samba waaw góor xëy na daal jege gi moo ëpp <laughs> waaye fàttewu a dee waaye moom daal ci suuf tànk yi rek fa rek ñoom ñaar moom jege bi ñu ma jege dafa ëpp ndeysaan fa tabaarakallaa samba ba léegi rek la ñu daje mu defati yam daan def moom xam nga ko moom fa tabaarakallaa bu yéeme la waaye ñu koy ñaanal yàlla rek yal na yàlla yokk sutura ba xewal maam samba sànq la jógee kër ga ndeysaan wax dëgg yàlla ni day day gont ji ak fa tabaarakallaa waaye ñun ñëpp yëg nañ affaire bi ñu ngi ciy bàyyi xel jamono bu nekk ñu ngi leen di ñaanal yàlla ak seen soxna yi sama soxna si bopp soosu fa tabaarakallaa ñu leen ñaanal ñëpp rek <laughs> samba <laughs> ñoo ngi lay nuyu baax a baax di nuyu ñaari soxna yëpp ngi lay di nuyu di ñaan sa borom yàlla defal leen taw yoon ñoom ñaar ni nga ko waxee rek day kenn dañuy kenn ci ñun ndax ndeysaan moo ko fàttee bañ fa àndee dem yendu fa ñu teral ñu teraanga ji yaatu duñ ko fàtte mukk ñaari soxna yëpp ñoo ngi leen di ñaanal sa borom yàlla soxna Fatma macha allah soxna Sini macha allah waaw surtout soxna <laughs> wallahi wallahi wallahi wallahi

be chare ba sidi donc chare ba rodde boune ku ne xam ne rëdd bu la tuddoon waaye ci seenu pas-pas ñu tuddee ko rii gaynde Fatma kon loolu pas-pas la ndax ut tur bu baax tur bu tedd tur bu sell Kër Massar dañoo am lu jafe bu lu ko dalee ci rii gaynde Fatma ba ci teen bi nga jëmaat jëm ci 54 bi lépp rii Alaaji Abdu Asiis baax la kon loolu norme la yoo xëyte nii am nañ ko fii ci Kër Massar di ñaan saa borom yàlla defal ñu tawfeex noo ngi siyaare mboolem seen di nuyu ñëpp mboolem seen soppee Serigne Massamba Ngom ñoo ngi leen di béggee Seydina Omar ñoo ngi koy nuyu ñi nga xayante ni moo ngi fii ca marché Kër Massar di jaay gees neer ak xeet yu baax yu bëri Seydina Omar ñu ngi lay nuyu ñaan sa borom yàlla defal la tawfeex di siyaare mboolem seen ma de a fatt sama yaay rek ñàkk waaw <laughs> allah baay baay Omar Sy ah, allah baay baay Idrissa macha allah ah, baay baay <laughs> Moustapha wallaay ndeysaan Ñing ndeysaan suñu bàyyi duudu kan macha allah ak suñu yaay yëpp yaay amee ñëpp rek yaay arab tabarakallah ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñoom rek émission lañu woote <laughs> <laughs> tabarakallah ndax seen mbaax ak seen woyof mhm. ak seen bëgg njaboot tabarak bëgg njaboot buñ la gisee sax duñ yàlla ak cofeel yal na yàlla fay leen yiw cofeel boobu yal seen njaboot ñoom ñëpp tabarakallah waaw Oustaz bég nañ xam bi ba suba waaye <laughs> <laughs> xool xoolu jamaa nga yoroon bëggoon kenn ko weer waaye ndeysaan ñoo ngi dugal ñëpp seen nuyoo ci ci ci góor gi muy si euh, Moustapha ñoom ñëpp dugal nañ seen nuyoo ci góor gi képp comme ne tudd ñu ko rek uh-huh. dugal nañ sa nuyoo ci ci nuyoo góor ñaan sa borom yàlla defoo ñu tawfeex defoo ñu a daare ni di nuyu Cheikh Kane ñoo koy siyaar baax a baax a baax a baax saas oustaz uh-huh. xanaa kon uh-huh. da ngay def ñaan rek ñu yëkkati jotaay ba beneen rek ah, bokk ñu bokk jàng fatiha jàng salaatu ala jàng ñetti alam nasra jàng نتاج نيان إن شاء الله دوغلا على تي سين بي يالنا كي يالله فول أمين يالنا تي يالله أي نام أمين يالنا تي يالله خيول أمين يالله سطرة أمين في بارك يوم تبي صلى الله عليه وسلم أمين لين تي فيد أكلي تحت نيم جوك يالنا يالله وان لين تلو كم سن دوت